Thank you. kay bay ni sami wo bay ni sami bay ni sami wo bay ñi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi ndax ñoom ña nga cey bay seen waar gis ngeen fi mu nekk xaalis bi ñuy dugal ci élevage ni mu bëree infrastructure yi ñuy defar ni mu bëree gis ngeen ranch dolli bu yàggul rek ministre bi dem na fa di xool fon la mur bi toll la ca des bëreewul te li liñ ci nar a def ci projet bu buñ cee yéggee dana tax vraiment élevage jëm kanam moo tax na ñun ñi nga xam ne ñooy acteur u élevage dañ ne il faut ñu jàppale nguur gi action ñuy def ànd ak seen action pour que affaire yi gën a gaaw mu gën a jëm kanam tey su nguur gi defee fukk ñun ñu ñëw dugal ci suñu loxo day yokk jëm fukk ak juróom bu déwénee mu dem ñaar fukk ba ba ñuy yegg ca objectif yi ñu bëgg a wu te Renades dafa waxoon ni li tax ñu taxaw mooy dañoo bëgg lépp lu ñu am njëriñ ci élevage na dellu ci éleveurs yi moo tax tey bi ñu defee suñu AG yàlla wërsëgale ñu repas bu bëree bëree bëri ñu ne la ñu waxante woon ak éleveurs yi ba ñuy def suñu tournée nationale gor ca wax ja dañu delluwaat ci ñoom wax leen lii lañu am fi ñu toll te comme dañoo toll ci opération tabaski ñépp di ci yëngatu danañ leen jox seen wàll ci repas bi ñu koy tàmbalee région de dakaar ba région de Thiès ndax bu yàlla defee bu ñu paree danañ dem ci région yi tamit jox leen ci seen wàll loolu yépp bu ngeen ko gisee c'est pour wane ni rek la ñu waxoon doxalin bu bees gis-gis bu bees ngir élevage jëm kanam loolu la des di taxawe moo tax tey ñu ñëw ci forage de Rufisque ànd ak président Sami Diakhaté mi nga xam ni moom mooy président ADEL bu Rufisque di yëngatu ci mbirum xar ak laadum ah mu waxtaan ak yéen tey président nga dalal ñu ñu lay jox repas bii nga xam ni dañu ànd ak suñu ñaari sponsor leader ndax ñooñu dañ leen di sant di leen gërëm ñoom ñoo ñooñu jagale repas bi muy Sedima ak les grands moulins de ñoo ñu jox repas bi ñu ñëw di leen ko delloo pour que yéen ngeen jëriñoo ko du lu ñuy jaay lu ñuy mayele pour éleveurs yi na ñépp xam loolu nii la Renades bi doxee ñu continuer nii ndax buñ ko jàppee nii incha allahu rabbi élevage na jëm kanam ndax nañu fexe rek lu ñu am rek ñu delloo ko ci éleveurs yi looloo ñu tax a jóg loolu la ñuy taxawee ba pare nag ànd ak gouvernement bi lu mu bu jàppee fii ñu jàpp fa ca des bokk def bloc ah derrière madame le ministre de l' parce que moom ko war mais nguur rek mënut yor élevage il faut acteurs yi dugal ci seen loxo te boo xoolee tabaski bi du nguur mooy yar ay xar pour di ko jox nit ñi ñu koy tabaski nguur loolu du rôlam du du jar ay xar di ko jaay nit ñi nguur dafa war a encadrer. di leen kontaan leen indi. yaakaar naa li bopp képp ki la jàppale. baax baax baax baax baax ñu ngi leen sant la def barke kontaan nañ bu baax am nañ ci yéen mbitte bu baax. boo soobee yàlla kat à partir de tey réunion bi ngeen woote dinañu jël délégation din fekke si leen li ngeen wax ñu ànd na ci waaw ah, suñu ministre bi tam ne ñu ngi koy sant di ko gërëm mu ngi ñëw mu ngi yonne lépp lu ma diggee woon fi pour ñu def def nañ ko kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaanal ñi ko jàppale yàlla nañ yàgg suñu kanam jërë ngeen jëf mu soxla ci membre fondateur RENADES la bokk muy réseau national des éleveurs du Sénégal euh, niñ ko waxee ci foraay bu Rufisque rek parce que dañuy sant di gërëm ndax euh, président Sami bañ ko laajee fan ak fan lañuy ñuy dem daf ñu wax sites yi ñu war a dem mais mu ne ñu gendal

amatul fenn fu ñuy def état providence mooy teg say loxo rek lu xew nga ni maa ngi xaar nguur gi kenn du développé moo tax nag ñun ñu ne ci élevage dañuy fexe organisé wu gën a structurer yi taxawal réseau national des éleveurs du Sénégal surtout ci opération tabaski bi mais dañu bëgg gën ko jàppale ni ko Renades bëggee jàppale mooy fexe na ba ren sax li ñu jéggaani xaw na wàññeeku tuuti ndax trois cent vingt mille moutons rek la jéggaani mais dañoo bëgg ci niñ ko bëgg jàppale jàppalee bu déwénee mu jéggaani peut-être deux cent mille muton ci un bu ca at ma ca toppee mu jéggaani cinquante mille mu toxo mais troisième année ba du jéggaani dara ku ñëw fekk si ñu day fekk ñu motal suñuy xar bul la ci boo ci xajee ñu xajal la ci waaye Sénégal dootul demati di jéggaani xar loolu ci lii Renades bëgg a dox loolu ci la bokk di leen wax nag lii ñu def nii dañuy feddali kóllëre ak dëggal wax ju ñu waxoon ak yéen ñëpp bi ñuy sos Renades mooy Renades dafa indi doxalin bu bees ak taxawin bu bees mooy lépp lu ñu yàlla wërsëgale ci li ñuy liggéey ak nguur gi ak yeneen acteurs yi dañ koy delloo éleveurs yi looloo ñu fi indi tey ba ñu yàlla wërsëgalee suñu ñaari sponsor leader yi nga xam ni ba ñu taxawee ba léegi ñoo ñuy jàppale muy Sedima ak les grands moulins de Dakar ñoo ñu may repasse bu takku ñu ne nag comme ñi ngi ci opération tabaski danañ ko séddale région de Dakar yëpp ak région de Thiès tàmbalee ko nag tey Rufisque mooy wane ni cër bi ñu jox Rufisque moo tax tey ba ñu jegee ci fooraay bu mag bu Rufisque ñu ñëw gendal di leen jox seen wàll ci repas bi di wax nag lii geste symbolique rek la tàmbali rek la li ci kanam rawuli bët lépp lu ngeen gis ni lu ngeen dégg ni am nañ ko dana ci bokk xalaat ak yéen te danañ leen ci indil seen wàll ndax loolu mooy développement solidaire nda ci ñëpp jàpp gouvernement jàpp acteurs yi jàpp éleveurs yi tout le monde ñëpp jàpp bu ñu jàppee rek élevage day jëm kanam te bu élevage doxee éleveurs yi dañuy soqaliku te bu éleveurs yi soqalikoo naataange day am prospérité am te loolu mooy émergence ñun nag ci loolu la ñuy dox ànd ceeg action gouvernementale su ko defee élevage jëm kanam ñu ngi leen di sant di leen gërëm. alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim ngi leen di gërëm di nuyu ku nekk ci turam ak sami jaxate encore une fois ñu ngi lay remercier ndax yow vraiment sa le président mëte nga ko sëkk ndax fi yow xam nga ne fi fi nga xam ne fi lañ samp bâche bi am na plus de 20 ans ñu fi samp di fi yew ay xar bu wesso opération tabaski meilleur sujet Tëngéej meilleur sujet sen origine bir kër gi la docteur Alioune Sar xam na kër gi bu baax

ndax élevage boko ko déggee fi mu nekk nii nekkatul ay passion kese kese kese kese source de développement la xam nga c'est des investissements que les gens font nit nak bu investir ki kay épauler pour investissement am jëm de l'avant koku moy mbokam moy xaritam encore une fois Samy merci président l'idée de guléet la lii nii la depuis que ñuy samp fi bâche depuis que ñuy def élevage

fi yar jasik kon nag ñun ñu ngi def élevage defe naa ne président ñun ñu ngi lay jàppale ci sa waar parce ñu ngi dulal élevage bu baax merci kon ñu ngi nuyu président Omar Sow délégation bi mu def ñëw seet si waa daral gi di rafetlu tamit teewaayu président Sami Diakhaté ak euh, mbay mi ñu àndal rafetlu sofe bi nga xamante ni la moom kontaan nañ euh, comme ni ko waxee rek passion la nit ki bu koy def am lu ko ci dugal ba tax mu koy def kenn yaakaarul di fas yéene def élève kuy dimbali nit bëgg koo dimbali mënoo fekk kenn par kenn nga koy dimbali di nga seet mbooloo mu suudewu dëgër la ñuy def ñu takk ci transparent nga jaar la fa sa ndimbal ndax mu mën a yegg lii nag action la boo xamante ni wax dëgg yàlla dal na xel euh, comme ni ko Assane waxee rek c'est une première ñun nag yàgg nañ ci élevage bi comme ni nga ko waxee fii defe naa kuy wax élevage Tëngéej mënoo ko wax tuddoo gendal ndax suñu mag yi baax ñoo fi nekkoon ku mel ni Pape Bo naa ma si ñu koy wax Pape Bounama si ak Diak si ak Euh, ñoom gay ak ki yoo xam Maam Moodu si liggéey bu yaatu ci élevage ndax Maam Moodu bokk na ci ñi gën a yaatal élevage fii ci Tëngéej ndax ba élevage jafe ba jafe sujet yi jafe ba jafe moo fi indi xar mu ñuy wax Baye Laay yombalal ko bépp éleveur bu nekk Tëngéej ku ñëw courage dem ci la sujet yi tase bokk na ci luñ fiy tudd rek ci ay xar yu am solo bokk na ci sama boobu Baye Jaak ak ñoom bu naa ma si loolu nag ñu koy fàttali am na solo ndax wàññi boo gis benn lay tàmbalee waaye mel na ni ñoom ñoo ni woon benn bu nee ñaar ba ñett bay wax fukk tey war nañoo fàttali ña tax ñu ñu doon wax benn ñun nag li ñuy def passion rek moo ñu si duwal ak ay objectif te yàlla dogal na suñuy objectif ñu ngi koy atteindre ci li ñuy def kon nag képp ku jóg ngir ñëw fas yéene cee jàpp ñu nit la ngay def dinañ ca jàpp ca nañ ma ne te loolu moo am solo ndax léegi di kese rek naxu li bëy yàgg nañoo bokk ci ay association man mii bokk naa ci ñi jëkk exposé dakaar ba ñuy def ba ñuy def ay foire ca le 4C ak biir Dakar bokk naa ci ñi njëkkoon jóge di fa teew kon li am solo mooy ay nit bu ñu bokkee dara li may ñaaxe président daal na am transparent na am sincérité ñëpp nañ ci am visibilité kenn ku ne man cee gis sa bopp loolu bu amee la ngay def ca kanam la jëm kenn ku koy mën a teye mu jëm ca kanam amut ndax nit ki kat noonu lay xalaate loolu nag bu la nit ki bu la ñëwee seesi la wax ak yow ci sincérité da ngay da ngay tontu ci sincérité ñun daal ku bëgg ñu ànd ak yow loo wax ñu wax ko loo def ñu dugal ca suñu loxo na mbir mi di leer tegu ci dëgg ndax kat yàlla dogal na ñi ngi yar suñuy xar te am nañ ay aliment bu leen dundale man comme ni ko Assane waxee yàlla dogal na man chef d'entreprise la damay jaay lu mat million ko ëpp kii xam na ki ma yor samay fas moo yor samay xar moo yor samay jur aliment rek dinaa jaay lu un par mois kon donc kooku yaakaaroo keneen ndimbal feneen mais nag lii moo ëpp doole tey lu ñu mën a def ci ci ci aliment rek li ngeen fënd tey da ko ëpp doole parce que lii dafa neex dañ koo xaarutoon tey yàgg nañoo bokk ci association te mosuñu gis lu mel ni kon foofu rek la ñuy waxee kon nag kon nag nii Assane waxee ni c'est une première c'est une première loolu dëgg la wax nag balaa neex ki deug wax ci sax day xam ni li ñuy wax deug la ñun nak vraiment dama ne won ci yoon Dakar di dem Assane wax ma ni ma kilifa yi nañ ma jadd ñew bëgg ci indi sama téwé ci sama contribution kon man tamit ma bokku tënge voilà Assalamualaikum Wa Colobane guy murid

mooy le grand Omar yi di nuyu di yi fi nekk yépp di kontaan ci yéen lool ndax ak yëg-yëg bi. ah man nag damaa dégguli français ba xuma eh, sunu kii bi eh, seen renades kontaan naa ci yéen li tàmbalee ci président bi ba ci ki ci gën a tuut kontaan naa ci yéen lool waaw yal na leen yàlla defal jàmm defal ko bépp julli ci barke Serigne Touba daal mënul leen fay ndax lii ban dalee yar xar ëpp na vingt ans lii noo ngi koy soog a mas a gis tey association bu jóg topp éleveurs yi xamoo leen ñu ci bari xamuñu leen ñu indi la ripaas di la ko jox ku la ko defal nga bëgg te man lu ma ci mën a jàpp danaa ko jàpp ke ci gën a tuuti ku ne danaa ko wax ne ko nañ topp euh, euh, renades dégg nga ndax lii lu bax la te ci kanam la jëm inshallah barke señ do jere gene jëf kontan na ci lool. jëf waw assalamu alaykum man Mor la tuddu dekk dëkk Guédiawaye daru salam 2. waye li ngeen yëkëti di def yalla ko yalla lawal mu jëm ci kanam. te yag nañ ci éleveurs yi man day xam 1970. laa jëkk yeewam xar ba bisu tey ba bisu tey maa ngi xont waaye seen lii ngeen def ci yéen laa ko jëkk a gisee waaw association yi nag bari na fi fu ne bokk nañ fa lépp a ngi ci waaye nii ngeen commencé yàlla na ko yàlla eggale ak jàmm may leen wér ak lépp jërëjëf mbokk yi kon yéen ko déggandoo gis ngeen introduction bi nga xamante ni éleveurs yi ñu seet si fii ci diwaanu Sam Géejawaay moy kaddu yi nga xamantene mom lañu rotal duñu sori nak ndax ki nga xamantene modi le président Omar Sow and euh, ak délégation bu am solo bi mom lañu daldi jox kaddu gi mu wax tank yi wax également objectif bi nga xamantene si mom lañu fixé wu bu ko defee nak ñu daldi jallat nak ci kanam daldi terlat ñenen ki kan ci Renades la solution à l'élevage du Sénégal. jere ngeen jëf. aouzu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. bu ñu santee yàlla julli ci yenent bi gërëm suñuy ñaari waajur dañuy ñëw fii tey ci daralu Fitmith bi di nuyu mooy Daaru Salaam bu Géejawaay di jóbbante nuyoo réseau national des éleveurs du senegal suñu papa Dame Diaye ak suñu papa Mor Niang ñoom ñi teeru fii ak bépp éleveur bu nekk fii day di def opération tabaski di leen wax ni euh, ñëwoon nañ fi wax leen dañu am kuréel gu ñu bëgg a teg kuréel gi nag li ko tax a jóg rek mooy suqali élevage dimbale éleveurs yi te lañ ci waxoon mooy lépp luñ ci dab comme wërsëg dañ koy delloo éleveurs yi mhm. ndax association éleveur buñ koy wax éleveurs yaa tax du bureau ba éleveurs yi ca boppam ña nga xam ni ñoo nekk ci terrain bi subaak ngoon nekk ci xar yi nekk ci opération tabaski nekk ci yeneen opération ñoo ñoo tax ñuy wax ba tax na tey yàlla def na dañu ànd ak suñuy sponsor leader ndax dañuy sant yàlla ba ñu jógee la Sedima ak les grands moulins de Dakar ñoo ne dinañ leen jàppale ba yeggale leen fa ngeen jëm ci kàttanu suñu boroom

partage humilité lu ñu am bokk ko ubbeeku ba pare wàcce suñu bopp ndax élevage mënul am kee nekk ca jaww ga ki nekk ci suuf élevage ñu ñëpp ay moroom lañu ñëpp war a mën a àndandoo ndax jur moo ñu boole te comme jur gi nekk yàlla ci boppam moo ko barkeel bu ñuy wax jur nag waxuñu xar rek dafa fekk ñu toll ci période tabaski ñun même ñiy yar janax yu weex yi sax ñi ngi ci suñu biir ñëpp ngi suñu biir picc yeeg petax yeeg bëy ak nag ak ñëpp a ngi suñu biir ndax ñun élevage moo ñu ñor du jàpp ci benn filière rek bien vrai que nag noonu ñu leen dajale danañ fexe ba filière yëpp gën a am doole ndax li ñuy dox dañ koy dox ci ndigalu gouvernement bi parce que boo nekkee ci am réew dafa am nu muy doxee état bi mooy wax orientation bi lii la képp ku jóg pour jàpp ci benn secteur

parce que ren trois cent vingt mille moutons rek la ñu jéggaani léegi danaa des nag dafa bëgg bu déwénee te dañoo bëgg waa Daaru Salaam bu kenn dem ngeen des ndax dañoo bëgg bu déwénee incha allahu rabbi état buy jéggaani jéggaani moins de deux cent mille moutons mais loolu pour mu nekk il faut que ñi ñëpp ku ci ne ren boo defee cent moutons fexeel ba déwoon nga multiplier ko par trois mun na nekk. ndax Dakar trois cent cinquante mille moutons rek lañ soxla ci tabaski bi mais association yi fi nekk yëpp benn association rek mun nay génne par dix mille quinze mille buñ ko séddewee ku ne na génne cent moutons rek. bu association bi des cent personnes ñoom mun nañ génne dix mille buñ ko ëppee mun nañ génne quinze mille mais loolu buñ ko dajalee ak association yi nekk ci Dakar war nañ mun a am ay xar yu doy su ko defee ñu dimbalee ko nguur gi ndax jël xaalis bi di ko yóbbu bitim réew pour mottali suñuy xar war nañ ko mun a mottali fii te mu dellu ci éleveurs yi ndax loolu mooy yokkate éleveurs yi di leen wax nag nii ni des moom da éleveurs yi jëm kanam rek et bëgg nañu waa Daaru Salaam parce que Sedima ak Grand Moulin dañu taxaw pour dimbale éleveurs yi à travers le des bu ñu yàlla mayee ba ñu tabaski ba pare ak jàmm ak salaam dinañu lancer les magasin de référence des te ñi nekk ci gannaaw mooy les Grands Moulins de Dakar ak la Sedima ku fa ñëw di jënd aliment danañ la ko jaayee ci prix bu yomba yomba yomba yomb te même aliment lay doon mais loolu suñu sponsor yi ñoo ko defal des donc dañoo bëgg tamit yéen waa Daaru Salaam ngeen fexe ba am benn magasin de référence pour bu ñu yàlla yóbboo ci jàmm salaam ba ñu tabaski ba pare bu ñu commencé opération boobu ngeen di fa mën a jënd aliment ci lu yomba yomb ñoom nangu nañ ko d'accord nañ ci ci Sénégal yépp ñu am ay magasin de référence des nga xam ni boo demee fenn di fa jënd saak bay jar 8500 ñun boo ñëwee ci des mun na la ko fexe ba ngay amee ko ay 7000 wala liñ ciy teg tuuti la mais loolu na war nañoo jàpp ni même bu dee Renalès fexe na tey ci tàmbali bi saako repasse bu nañu wàññi ci 200 francs sax ba léegi baax na waaye comme fexe nañu ba ñu ciy wàññi lu ëpp loolu te ñu koy jaayee ci magasin référence yi na ñëpp préparé wu jàpp ci ndax du njëriñu Renalès rek njëriñu éleveurs yi la loolu moo ñu ñor ñun ay yeneen détails ñoruñu li ñu ñor mooy na éleveurs yi gis seen bopp ci élevage élevage ñu fexe ba éleveurs yëpp yëpp yëpp bu ñu amee tey benn suba ñu am fukk parce que loolu moo am solo li ci des yëpp nag amul solo amul ñu xëccoowuñu jéemuñu nangu kenn la mu yor dañoo bëgg ñëpp àndandoo nekk benn ndax élevage moo ñu ñor encore une fois nañu jàpp ni élevage élevage rek la mën a doon mënut a nekk leneen vraiment di sant ñëpp di leen gërëm papa di leen wax di leen fi ñëwaat pour gën a waxtaan ak yéen pour wax leen projet bii ma leen wax nii te ñu war ko démarrer parce que lii projet bu ndaw la rek ci affaire des nag dafa am solo lii ñu war a tëral yëpp. suma togon tay fi diko di wax ba 22 h ci goudi duñ fi joggé mais dañ leen di wax rek li nga xamni tay mo leen soxal moy nan ngeen di def bay am repas bu yomb ci pour sen jour ndax euh, jour yi bari nañu te dund bi metti na ma ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam seddoo boobu nag mooy suñu tànk yi tey le président euh, Omar Sow ànd ko ak ki nga xamante ne mooy vice président euh, di Djibril Wade ànd ko une très forte délégation du ma leen ndax xam ne dem bu baax a baax ñoom ñoo ñëw tey fas yéene nag dëggal partage boobu partage bi nag mooy lan mooy ginnaaw ba nga xamante ne def nañu assemblée générale bi euh, le 19 bii passé sédiment ak les grands moulins de Dakar ñoo boole seen doole yëkkati repas bu takku daal di koy leble wuñu able wuñu ma ne ko président lan ngeen di def mu ne ma dañuy daal di dem nag ci éleveurs yu Sénégal yëpp daal di yëkkati nag li nga xamante ne moom la ñu waa euh, moom la ñu waa SETMA jox moom la ñu DMD jox ñu daal di koy bokk ak ñoom loolu mooy wax moom la ñuy consommer kon nag ma leen di ñaan yéen ñëpp kenn ku ci nekk na nga bàyyi xel Renades muy baatu partage bu am solo boobu leen di sant encore une fois di leen gërëm yéen waa Malick ba Rena des daal ca kaw ca kanam dafa naa ne bu mu leen neex ne leen ànd ci moom jërëjëf. macha allah sant nañu leen bu baax gërëm nañu leen nee nañu nag ñu jox leen kàddu bu ko defee ñoom itamit ñu dara la délégation du réseau national des éleveurs du Sénégal à sa tête le président Omar Sow. non dama la doon wax salaamaaleykum. ñu ngi nuyu nañ trop seen euh, arrivé à Malika ñu ngi leen di dalal ci jàmm. ah dégg naa présentation ki présente léegi am li mu wax partage ah sooy partage partage da nga ko fekk fii li tax da nga fekk mooy dañuy tabax cité Sonatel. 4 hectares ñu en deux parties jël 2 hectares jox ko nous yi nañ partager jaay mais pour participer au développement de la localité pour répondre aux aspirations du chef de l'État pour un Sénégal émergent une une émergence muy commencer ci sa localité moo tax ñu 2 hectares yi dañ ko jox ambition suñu ambition zone bi yëpp bëggatuñu kenn jóge fii di dem jigéen xar feneen soo amee jógee fii dem Dakar jini xar minimum soo jëndee xar di nga fay 5000 francs ou 4000 francs jël taxi ñu ne pourquoi n'est pas implanter un dara à Malika nga jënd xar wat ko yóbbu ko sa kër nga économiser 4000 5000 francs mën naa jar dara kon su ngeen partage da ngeen ko fee fekk te suñ beneen objectif moi. wax naa ko keroog euh, à Amin Mbengue Ndiaye si nous avons le soutien de l'État suñ ambition mooy ñooy nekk le premier daral du Sénégal pourquoi Parce dem la taw fait une averse deux deux heures de temps après man nga laal basang ataaya am poto poto donc je suis venu à ma dellu ci Dans yi journée de l'élevage bi construit euh, construit à pour fédérer fédérer nos forces avec les éleveurs de def délégation de Ndioum bi ma nekkee cérémonie on reste deux jours à yum, échanger avec les éleveurs pourquoi Nous, ki soo koy dimbale da ngay xam soxlaam ñu réunion ak 92 éleveurs dont le président est là à accueillir ñu ne ñu ren dinañ le le le marché de Malika ñu am un objectif mais avant ngeen di ñëw dañ ko clôturer mais procédure de papier moo tax dalal bi euh, pas inauguré mais sous saa di le promoteur est là poste après euh, Tabaski nañ ko clôturer. L'année prochaine nous prions. ngeen ñëw visiter ñu. su ngeen ñëwee di ngeen fekk beneen beneen dalal. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. gërëm éleveurs yi. Euh, duma jeexal te euh, le bureau du Daral dont Samba est le vice-président il vient après moi soxla bu ñu am toujours mu ngi ci ñu di remercier ak Alpha Lévi Ousmane Tal, ñoom ñëpp mënuma mais nous sommes vraiment satisfaits te ce soit le développement Malika dañ à travers le Daral de Malika je vous remercie vivement merci beaucoup merci président Ngom sant bu

président wax ko parce que président lim wax fi moy esprit moy moy euh esprit bi du parce que toujours président wax président Omar Sow wax ko mooy dafa gëm ni développement si si si euh, suuf la jóge jëm si kaw day à la base. dem ci vers vers euh, aller vers waa vers euh, dem vers le sommet donc nak yow et dañ ko partager ak ñu tek tay ñu leen di wax nak aujourd'hui li nga tax jox

war nañu war nañu ñëwaat si yow delloo delloo si yéen euh, leen jukkal wax leen jërëjëf seen taxawaay kontaan nañ ci euh, rafet na. mosul am ci benn dara état moo ñu doon jox yéen yéen a def seen pexe ngeen dem ci euh, ci ci ci industriel yi ñu jox leen lii ngeen indil ñu ko jërë ngeen jox bu éleveur mu nee jaay xar million millions ñi ñoo tax bu dul woon ñi éleveur. Je 40 millions. affrontez-vous les éleveurs le plus le plus du Sénégal parce que national euh, des éleveurs. Euh, euh, du Sénégal bi nga été tout récemment le 19 euh, euh, août bi passé tenir assemblée générale et puis porté à sa tête monsieur Omar Sow Les dañuy ñëw ont filmé, ne nii man maay Ablaye suis man maa nekk président ADEL le coordonnateur des commissions et des antennes si structure est Renades tey nag après sunu assemblée générale euh, gannaaw bi remercier nous nga xamante ni vraiment répondre c'est assemblée générale boobu mu comme une réussite euh, totale euh, di vraiment sargal ñi nga xamante ni accueillir tay ji di len remercier ci dalal biñu dalal dalal tay après assemblée générale bi réseau. Euh, national des éleveurs euh, des éleveurs du Sénégal Nous avons décidé d'aller euh, maintenir nga partenariat ni le partenaires yi GMD dañ leen ko d'appuyer ñu ne duñ ko vraiment appuyer éleveurs yi l'opération tabaski yi def vraiment au niveau de Dakar ak Thiès pour vraiment accompagner éleveurs yi l'opération opération tabaski jox leen aliment bi nga xamante da ko may vraiment moy euh, mission wu Renades parce que Renades dafa fait pour taxaw ci soxlay éleveurs yi euh, Renades dafa ni damay vraiment apporter sama contribution Si nga xamante un défi, ay défis ñu interpeller élevage Sénégal L'élevage euh, Renades dafa ñëw apporter ay solutions D'ici, on nak les autorités étatiques et plus particulièrement ministère de l'élevage ñun li ñuy def nag ministère élevage rek la ñuy jàppale tey nag def nii mu néew mu bari dañuy wax ni euh, commencement la rek li ci kanam mi ngi ñëw te ngeen jàpp ci xam ni lii structure la boo xamante ni dañ ko taxawal pour vraiment taxaw ci soxlay éleveurs yi manuma guddal nag parce que tout simplement condition climatique yi may mayuñu ko te aliment la ñu tiim tey dañuy bañ mu yàqu kuy defar du yàq léegi daal daal mu mu néew mu gàtt aliment baa ngi nii ñoo leen ko may pour vraiment ngeen dimbalee ko ko si opération tabaski bi ñoo ngi leen di gërëm di leen sant réseau national des elever mi ngi leen di gërëm di leen sant merci beaucoup. mbokk yi turu amicalu jàmm gën si Kambaaw euh caaroy azur ak li nga xam mom mo wor war gox bi euh avant tout damay remercier rek ñi nga xam ñom ñoy wa Sedema ak euh, ñi nga xam ñom ñoy wa Grande Moulin si acte bi nga xam mom lañu def muy acte bo acte bu noble la franchement kontan nañ si bu baax ñun ñi nga xam ñun ñoy wa amical jamm gën Kambaaw Euh, acte bii doon na acte boo xam ne acte bu rafet la ñu ñu ñëw si daral bi nga xam ne moom mooy daralu Fora exposé fi suñuy xar di jaay ñu fekk ñu fi may ñu ripaas bu toll nii loolu duñu def lu dul di leen sant di leen gërëm euh, ci ngërëm li itam nga xam ne ñoom lañ moom la ñuy sant ñu ngi si jiital euh, président bi nga xam ne moom mooy Omar Sow président Renades président Renades bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla dafa ñëw pour suqale élevage ñun ñu doon ay ndaw yoo xam ne élevage rek moom moo ñu ñor euh, bëgguñu lu dul élevage euh, kon président Omar Sow su ñëwee fii di ñu jàppale si loolu dañ si euh, dañ si kontaan bu baax di ko remercier di remercier itam ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp muy ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo indi fii ripaas bii di waa Sedema ak Grande molin franchement kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax si yéen di leen xamal ne daal encore une fois wa association Diamaguène Sicap Mbao kontaan nañ si yéen bu baax a baax di leen jaajëfal euh, di leen wax ne dal kontaan nañ ñun dara ñu ñoruñu rek dara ñoruñu lu dul élevage euh, te ñun ñu ngi ànd ak ñëpp euh, premier la boo xam ne asia waaro naa des def nañ ko fii si Diamaguène Sicap Mbao kon nak duñu def luddul dul sant leen si gërëm leen si di leen ñaanal yalla di leen xamal ne dal ci kawtu kanam ñun ñu ngi fi nekkal élevage yépp di ñaan yalla jamm ak salam Euh, lalu ci kaw élevage ñi nga xam élevage bi nga xam ne daal moom mooy élevage surtout élevage u laadum ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sëq di ay président ñëpp yàlla def jàmm nekk seen i biir ñu ànd bañu am ba ñu am euh, xëccoo euh, ñun seeni i rakk lañ seeni njaboot lañ kon wax dëgg fa yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu li nga xam ne daal moom moo fi am nii tey jërë ngeen jëf asalaamaaleykum faut il faut mu Umar Umar il faut mu wax defal mm, mm. yow yaa ngi allo allo allo allo allo demul allo allo allo micro micro non kii bi la camion bi la camion bi la allo camion bi la wax leen rek problème bay ñu wax ñu dekk Umar président Umar mi ñu ko gërëm dekk sant dekk ñaanal yàlla loxom mu rek ci jur yi mu ngi dimmel julit yi ci jakk yek juma yi li bu ko defé duñ wok guleet guddi muy beccek mu ngi dox ci éleveur mu ngi dox ci jakk yi mu ngi dox ci juma yi ko nak li la ñaanal lo lo mu ren yalla na nga ko mun dewel lu ko ëpp lu ko op lu ko ëpp sa taxawaay si dëkk bi wax deggam yalla rek wul luñ kamante won ak yow ñu ngi la gërem del sante yalla na la yalla dolel yalla na la yàlla awa awaas liggey ci kollari mu ngi fi sama gannaaw sama morom la sama karil la ku la yéeg la mooy Ndiakh Ba mii dégg nga sunu mag bi Ifra Ba dégg nga mooy taxaw fii tey président daral bi dégg nga ñu ngi laa gërëm di la sant di ngaa leef si jëf mbool bi dañu la béy ak yàlla rek yàlla moom jis na kii du tal nun yela kam bu baax lii du gis tal léegi nekk nekkee nun kam nañu yàlla na la yàlla jàppale wasalaam balaa ngeen dem leen ñu am luñ leen kon nag euh, waaye camion bi malheureusement euh, kon nag mbokk yi defe naa ne yéen a may dégg bu baax dañuy daal di leeral rek ni kenn ku ci nekk xam ne bu ñu nee élevage ne dund bu baax bu ñu nee dund bu baax ne ripaas te ripaas nag mbokk yi xam ngeen ne fi mu toll nii xaw na jafe léegi nag waa réseau national des éleveurs du Sénégal muy des nee nañu dinañ nekk seen tànk nekk seen loxo yéen éleveurs yi dem gise ak industriel yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu ripaas ba taxawal lu ñuy wax ay magasin ay magasin de référence magasin de référence nag mooy lan mooy ay magasin yoo xamante ni le prix le prix ripaas bi di jar ca biti ñoom bu ñëwee foofu dañu koy wàññi lool ba bu doon jar neuf mille francs mbaa mu jar huit mille francs ñoom danañu fexe ba mu war a mën a jar sept mille francs wala sept mille cinq cent francs loolu nag ñoom takku nañu taxaw nañu bokk na ci seen objectif ñu fas yéenee dem doxta dox ko wax ko ba loolu sotti incha allahu rabbi ñu yëkkati ko teg ko ci loxoy éleveurs yi

kontaan nañu. merci beaucoup. alhamdulilah rabbil mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. misaal ma ni noonu foo leen mën a jottooñ man leen yéen yëpp tur ak seen sant di leen gërëm di wax ci kaddu président daral Ibrahima Malick Ndiaye ak Ibrahima Djibi Ayli Sow président maison di El Wóor ki Oumar Sow Oumar Sow président dégg nañu keroog man tey jënd naa soleil mu ngi ma def fale liir naa foofu affaire bi yëpp tey laa jënd tey laa xam sa affaire yëpp fu mu toll. noo ngi lay ñaanal li li xaaroon wax yàlla na la yàlla jàppale. li tax wax alhamdulilah rabbil alamin bu ñu toogee nun ñuy indi ñuy indi ñuy indi bee mojj suñu doom ñu ngi indi war nañu sant yàlla ndax nun rek noo doon indi mm-hmm. suñu doom ne ñëw nañ indi nañu noo ngi rafetlu affaire yi. di ñaanal suñu doom yi di leen sant di leen jërëm di leen ñaanal yàlla nañu am at yi ñu am fii man à 79 laa ñëw fii ci daral bi foora boobu ba léegi alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla. pour delloo siwaat leen li nga xam ne moo ci seen njukkal. lii nag du dara ab tàmbali la. comme ni ko président di waxee rek. maanaam li comme mooy li njëkk a feeñ. te ñoo àndoon liggéey bi moo tax ñu ne nañ ñëw ci yéen delloo si leen ko euh, parce que président ak membre bureau bi ak waa des yëpp dañu sol seen dàll bëgg a jàppale président de la république ci li nga xam ne mooy euh, autosuffisance de mouton bi nga xam ne moom lay wax pour lu ko jàppale ci tabaski loolu bokk na ci li nga xam ne tax na renaa Renades jóg ak yeneen éleveurs yu ndaw yi nga xam ne bëgg nañoo jóg fekk yu mag yi ñooñu it ñu ngi si biir ñoo xam ne Renades daf leen war a jàppale di leen wax ne nag des bàyyiwul kenn ñëpp la tàllal loxo ñëy yar gëléem ba ci petax ñëpp a ngi ci biir bàyyiwuñu kenn yéen waa yi nag ñëw nañu tey ñëw indi leen jukkal lii nga xam ne comme yàlla moo ñu ko boole jox ñu wan leen ne des ba mu jógee président ni mu ko waxee woon ne bu dee benn dërëm la it dañ ko fas yéene bokk ak ñi nga xam ne ñëpp dañoo bokk ci élevage Euh, génnewuñu kenn du RENAS de des dong lañ koy jox maanaam ñëpp ngi ci biir kon loolu mooy nga xam mooy suñuy tànk tey di leen tàllal loxo di leen wax ne tàllal nañ leen loxo muy guddi muy bëccëg lépp luy seen yitte mooy yitte des bëgg nañ ñu jógee fii kenn ku ne xam ne des caaxaan taxu koo jóg liggéey moo ko tax a jóg jëmalewaat Sénégal kanam ndax damay wax toujours ne réew moo mën a de wàcc tey lu ñu béy lu ñu sàmm lu ñu napp moom nga fay fekk kon ñun bu ñu yàlla baaxee jubale ñu sàmm gi càmm gi yàlla dogal ñu am président boo xam ne muy Omar Sow fa mu bëgg a yóbbu euh, càmm gi dañuy ñaanal yàlla yàlla euh, dimbali ko dooleel ko ba mu àggale fa càmm gi muy Renades Renades jóg na pour ñëpp comme dañu nekk ci jamono yi taw jarul guddal parce que aliment bi bu ci ndox mi demee mën mën na yàqu mais amoon nañ yéenay wax lu ëpp lii lu ci dëng rek ci man la waaye du liñ liñ ma wax loo lu ko gën a rafet la ñu ngi leen di jaajëfu yéen ñëpp jërëjëf yow tamit ñu ngi lay jaajëfal ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax kon nag léegi ki nga xamante ne si mooy bàyyi ko tamit mu wax naka la gisee euh, li nga xamante ne moom mooy teraanga bi leen waa RENADES indil tey aouzu billahi mina shaytaani rajim salaamaaleykum wa Euh, mbokk yi ñoo ngi leen di dalal jàmm di leen gërëm di leen sant am mbégte ci lii ngeen xam ne moom ngeen nu indil yéen de xeeb ngeen ko waaye ñun dara lu caare xeebunu ko ndax teraanga kat yéen xam ngeen ne du dut te lun xeebunu lii nun nag tàllal gi ngeen nu tàll loxo tey jii bis ni ko tey ñu ne dënd noo feddali ànd ak fu ngeen nu woonu fekk leen fa ndax ñun kat amuñu lu càmm amuñu lu dul càmm te kon ku la fekk ci càmm di la ci dimbali war nga ko bu la tàllalee loxo war nga ko jox ñoo ngi leen di gërëm di leen sant comme ni ngeen ko waxee nag wax ji mën naa gën a gudd waaye comme ci période nawet la ñu nekk te bëgguñu ne da a war a demaat ay feneen moo tax rek ne kon wax ji mën naa gudd mën naa gën a rafet kon nag ñoo ngi leen di baalu àq di leen baal tax xam ne su jubee rek ñu gërëm yàlla su fekkee ne am na ci lu gën a na rafet ngeen nangul na ko te xam ni njuumte la ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jóg sama kàddu gu mujj mooy yéen xale yi yéen laay waxal dafa bokk ci objectif u des xale yi nga xamante ni dañoo bëgg élevage gëm ko te depuis euh, ay at yu bari ñu nekk ci te nu mënuñoo fexe ba gis bunt boo xamante ne mën na see jaar génn Renades mi ngi leen di invité à ce que ngeen rejoindre ko bu ngeen ko jegee incha allahu rabbi lépp loo xamante ne soxla ngeen ko yéen jeunes yi nga xam yéen a nekk ci élevage ñu jàppale leen ci ba ngeen jot ci ñu barke seen merci beaucoup jërëjëf jërëjëf góor Ibrahima Thiam. waaw moom sax laa. asalaamaaleykum mbokk yi. ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen yaanal yàlla nañu yàlla defal jàmm li Omar wax nag mooy sunu mooy sunu lépp mooy sunu président li mu leen wax loolu moo nekk ci nu ñu ci ginnaaw Omar tey ëllëg Omar it munu munuñu ko bañ a ñàkk sant ndax day mag ba pare nekk fi ak njobootam jiite ñu fii ci dara lu caaro yi dara sunu dara manqué wut. Omar kon dañ lay ñaanal yàlla yàlla may fan wu gudd ak ak wér muy góor muy jigéen xale yi nekk fii ci daral bi jox nañ la cër cër bi ñu la joxit ñoom it nañ gën góor góorgóorlu mu yokku ndax boo amee kilifa goo xam ne gi saa yu taxawee ci mbooloo wax ñëpp connaître ko da nga koy gëm jàpp ko ni ngeen gëmee Omar na ngeen di gën a jàppee Omar Omar ña lay sant bu baax ña lay gërëm président bii ngeen jël jiital mu andi tontine bii joxoon na ko li Omar wax nit ñi ñu ngi ci ginnaaw Omar taw Omar fu mu aw foofa lañ aw kon Omar yàlla na jàmm yi nekk ci quartier fii nag ci daral bi ñi ngi góorgóorlu di daan seen doole kenn ku ci ne da ngaa yor kër yor sa ndey yor sa papa kon nan yàlla yàlla yàlla dimbali leen defal leen jàmm kontaan nañ ci yéen bég nañ ci yéen ku yor taraanga ñëw di la ko jox di la dimbali kooku mënoo ko fay yàlla mi am pay yàlla na leen yàlla fay ñu ngi ci seen ginnaaw tey suba ca ba ca ngoon kon yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla dooli jàmm dooli wal defal kon nag mbokk yi prochain étape Pikine la. ay Oumy Oumy allo. waa On se connaît très bien. On a passé les plus beaux jours de notre vie. ñoo fowandoo ñoo magando defando tanku nen man ak mom bañu ñu ko légui ça fait près de 40 ans parce que légui fi mu ne ñun ñu ngi ci ay 40 di tégal kon boobu ñu ngi am ay 5 ans 6 ans japp 7 ans boobu lañu ñu ko jee tegante bët Rena Des moo ñu boolewaat tey maag ñu dajé face à face. kon ma ngi santat Yalla bu baax ci Rena Des El Hadj mi ngi fële ci ginnaaw un grand éleveur mom itamit depuis plus de 40 ans comme mom taa ko ñu gis tay ji la ñu daje.

Jibi Kanji ma jox la kàddu gi nga daal di introduire kilifa yi ñu daal di waxtaan joxante rendez-vous suba incha allahu rabbi continuer sunu caravane. Ndeysaan c'est l'émotion dafa dugg si koom ko ñam ji mu dugg si tax na tey mënatul a wax waaye wax naa ko sànq nee naa yegg si nañu mag ñi duñu laajte xale yi di duñu laajte kenn ku nekk naa lii lu mu doon. di jàmm ak salaam rek la li mooy des di réseau national des éleveurs du Sénégal seet si leen indi leen serite par bu buñ ko dee wax wala ñu ne ndéwénal jëm ci tabaski ñu am ci ay projet yu rëy fas yéene ci Sénégal tabaski dootu fi jafé borom kër programme bobu kilifa yi dinañ ci ñëw waaye nak nañ ci ñëkke moy lan une semaine lañu amagum bañu ñu juddoog léegi muy kérok samedi ñu am suñu AG fele ci CICES mom la réew mi waxtaanee ba nga ni lire bobu juddu won tay la am une semaine. ah yalla yalla fay yiw yalla yalla fay yiw yalla na yàlla ci. amin Alioune jërëjëf wax na ko moom seen chérif boobu ay dara mo doon wax leena ay mag ñuy dox ci taw am ñu lan mo la yëkkati moy may maye aliment. man Ousmane grand éleveur le président du regroupement des éleveurs de la banlieue Madame association. dama am membre dama bokk dañu dàq ma ko ba suba dama jéggaani daal dem reera wala ma dellu si waat léegi deux cartes de membre plus carte de membre BKR allez président merci beaucoup association Ali Aïdara bi ñu fekk si fii vraiment di wax ci

dogal ñu sedd ñu aliment bi yéen a ko gisal seen bopp oto bi sax lañ fi bëggoon dugal ngeen yéen waa Pikine ngeen gisal ko seen bopp mais dafa xat mais li leen di xamal mooy liñ leen waxoon mooy lu ñu am danañ ko bokk ak yéen looloo tax Ali Aïdara lii ñu la jox mën naa wax ci au nom du bureau xeeb nañ ko mais nañu xam ne avec dafa bokkoon ci ki ñu dëkk wuy si nga xam ne ñëpp ràññee leen Trinades lii dafa bokk ci programme mu Renades parce que Renades dafa wax ne éleveurs yi dafa xool leen ñi ci seen ginnaaw la son président am nga da doon taw mënoon nanoo ne yónnees ñeent fukki fin saagi ne leen am leen te ñëw dem mais defuñu ko ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen liggéey ñëw taxaw taxawul leen parce que am eh. fi nekk eh, waa bokk ADEC nekk Ali Aydara Ali Aydara yow nga lay sant di la gërëm parce que nekk na tey bienfait yi ngay def ci ADEC parce que sa président moo ma ko wax mais li leen di wax rek ne programme mu Renades pas ko wax fii parce que ñu ngi taw et suba gi léegi ñu ngi yenn pour luy doxal élevage

vraiment ngeen jaar foofu pour incha allah déwén bu fi ñëwee ngeen ne ñu vraiment leen ñu teg bu ko 150 association defee dana doon ay milliers milliers de bêtes bu ko defee autosuffisance en mouton dina régler. Et loolu la ñuy xaar ci vraiment discours bi mën na yàgg ñu ngi vraiment sunu partenaires yi ñu ngi leen di remercier sédiment ak Grand Dakar gàcce ngalaama ñu le président Omar Sow di ko wax ne tàyyiwul benn yoon son équipe, équipe, il est à l'image de son il est à l'image de son maître donc kon loolu ñëpp a ngi ci gën Messi bubongari tay malam besije linyang ate bubongari tay malam besije linyang bubongari tay malam besije linyang bubongari tay malam besije linyang sami balugalo bay boy ni sami wo sami maniga sama bay boy ni sami wo sami bawalo bay boy ni sami wo sami bane sami wo sami bane samiwo sape balugolo bayini samiwo sape bajolo fe bayini samiwo bubungare fe malam sinye ninya bubungare fe malam